mbokki Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu leen ziar bu baax leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yeen waa leen wax 4 euh, avril bi gis ngeen yéen a ma gën a xam gaa yaa ngi fu ne ñu leen di ndokkeel ci 4 avril bi di wax suñu mbokki euh, takk der yi jërë ngeen jëf fi ngeen ko jàpp foofu la waaye tey ñu ñëw ci beneen numéro làmb euh, ñëw fii ci arène yi nga xam ne moom mooy arène nationale arène nationale Euh, di arène boo xam ne làmb ko moomal boppam xëy na nag dégg naa ci ay sport yu bëri mu ci biir loolu xam naa dinañ ci ñëw waaye ñu ñëw seeti benn amateur amateur de lutte waaye ñu ñu gën koo xam ci lutte simple bokk Amalda di Aliou Ndour euh, ñu ñëw fekk ko fii ci arène nationale euh, gis ngeen ko ab nduureen la nag bu leen ko ko jàppee ah nduureen moom ku ne xam na waxtu yi laata moo ñëw am na fu mu jaar. Euh, Aliou ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu biram di la sant di nuyu waa Leewtoo TV yëpp donc di ndokkeel euh, tey si 4 avril bi di ndokkeel sama mbokk homme de tenue yi man yàlla dafa def dafa ma si jaar jaaroon nekkoon gendarmerie donc ñoom ñëpp sama classe yi nekk gendarmerie police armée tout douane ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen di. Euh, ne fête bi neex na macha allah seetaan nañ défilé bi. waa mais Aliou amateur lañ la xam mais jotoon ngaa défilé de comme jaar nga ci gars yi. waaw défilé naa défilé naa donc c'était en 2000. donc man 99 laa dugg armée donc euh, 2000 maa ngi woon brigade foire ci benn peloton bi ñuy wax ELO donc le colonel Madjimbe Diop moo ñu yore woon donc euh, jaar naa gendarmerie wax dëgg brigade foire. donc di lu ma neex nag parce que lu ma marqué la donc euh, man moom armée je savais que tôt je savais que même bi may jàng xamoon naan ne naa dem armée te dama njëkk a def euh, concours ENSOA donc bu Kaolack mu jël sotti donc ma door a ñëw dugg armée dem Bango ñu affecté ma gendarmerie donc loolu la. effectivement défilé na xam naa défilé ni mu neexee hmm. donc moo tax duma ko taate balaa may def dara 4 avril damay seetaan défilé bi ba mu jeex su ma mënul dem seetaani dama koy su ma mënul dem place de l'Obélisque damay ñëw seetaan ko télé ba mu jeex ma door a bougé donc noonu la demee moo waral mais joto ba dem ci làmb yi bi nga bi nga solee tenue di jàpp gaa yi di def noonu non mu jotuma dem nag ci làmb yi parce que ñun peloton bi ñu nekkoon dañ doon renforcer brigade gendarmerie yi donc muy brigade Wokam Thiaroye yooyu Foire yooyu lañ doon aan donc yooyu lañ doon renforcer ñun di def ay patrouille mixte ak ay police yi ngay xam ne dañ koy faral di def les week donc moo tax donc te xam nga aussi comme li nga wax noonu dëgg la xam nga foire ak Adrien Senghor soreewul soreewul mhm. dama doon am ay écho lamb Adrien Senghor lamb Adrien Senghor mais li taxoon duma doon faral di dem man siin siin la saalum saalum la ñun soo xoolee bëre dóor lañ gën a xam bëre dóor soo demee suñu dëkk yooyu léegi lañ ko bàyyi mais ñoom même xale yi dóor lañ doon commencé soo demee ay côté jaxaaw boo ay côté njebel ay gànjaay ay diya Sibassor ay jiwkul ngooj ñun bëre dóor lañ xamoon yaa ngi dëgg donc si bëre yooyu mais ay birale nag lañ doon def mhm. birale yi dóor la doon nekk mhm. donc amoon na ay champion yu mag yoo xam ne fa lañ nekkoon ba gën si mhm. donc man bi ma ñëwee dakaar pour wax la rek ma netti la benn anecdote mhm. Alpha Samb promoteur moo ma dugal si lamb simple njëkk naa jënd ticket ne ma nañ dem njëkk na maa woo ne ma nañ dem Adrien Senghor ma ne ko loolu bëri man façon bëre la mu ne ma lu simple ma ne ko loolu lu bëre neexul mu ne ma nañ dem nga xool mais jour bi ñu demee mu dagg ticket jox ma ñu dugg mm. jour boobu laa gëj Adrien Senghor ba léegi ci la ci la la virus bi dugg daal. la ma virus bi dugg. Mm-hmm. xam nga virus lamb lutte sans frappe rek su la xasee dugg moom jeex na foo mën di nekk su heure lamb jotee danga koy bàyyi nga dem seetaani lamb ji. Mm-hmm. donc si la ma virus boobu dugg ba tey jii ba yàlla def ma bokk si amateur lutte sans frappe bi ba tey. nga xamanteeg le président Diène wala. voilà xamanteeg le président Diène parce que dama commencé ñëw si lutte sans bi Diène gis ma moom xam nga yàlla moo ko may lool day gis nit rek donc euh, bëggu ko donc euh, si la si la ma gis. commencé wax ku mel ni Ousmane Ndour nga xam ne mu ngi nekk benn association ANALS mu ne mu ne ko kële danga koy fexe nga dugal ko si association bi. donc man su ma ñëwee si association bi tey jii si loxo jën la jógee mu wax Ousmane Ndour ne ko fexel kii ñëw donc ñàgg nañ ma ko wax nag aussi bëgguma woon dugg si association parce que xam nga boobu euh, deret militaire bi gënu doon si yaram bi trop mënu si gën sa mais. bëgguma woon dugg si ay association yooyu xam nga mu dute ni bëggul dugg si ay mbirum association yooyu yàgg nañ ma ko wax may bañ bëggul dugg ba au fur et à mesure ñu ma koy aussi si laa dugg si euh, association bi Amalda ba tey jii ma nekk fi vice président même temps chargé de communication. ñu nuyu Diène Diouf euh, gayndeg combik bi ah euh, des fois ñu dégg woykat bi di ko woy am lam ciy wax ah Mama Diène Diouf kaa combi mbakit togge ma kor daba kon ñu ngi koy nuyu moom Diène le président ñu ngi lay nuyu baax ñu ñëw ci làmb nga ne ci association bi nekkin ba euh, daan na bëri ay problème wala xaw naa tane. waa xam nga mbooloo moom mbooloo fu ñu nekk donc koo xam ne exemple man maa nga yaroo Diya ki yaroo fii ki yaroo fii ki yaroo fii donc yar ñu benn ku si nekk ak sa mentalité ku si nekk ni ngay gisee. mbooloo mi su bëree nit mënul ñàkk parfois yenn divergence ay ay kàddu waroo kii bëgg kii gisee nii ki gisee nii mais loolu soo amee aussi nañ xool rek li nga xam ne mooy intérêt général li nga xam ne intérêt général bi foofu mooy li jëmale làmb kanam surtout lutte sans frappe li jëmale làmb ñi nga xam ne amul dóor kanam donc su loolu amee ku si nekk na xool rek li nga xam ne mooy jëmale làmb ji kanam je pense que suñ xoolee benn côté boobu rek erreur mënul ñàkk mais dina wàññeeku donc moo tax erreur yooyu c'était lu mënul a ñàkk la lu mënul ñàkk la bëñ ak làmmiñ a dëkk te parfois ñu laale donc erreur yooyu mënu doon ñàkk euh, am na donc mais jeex na jeex na si jàmm ñu ngi si jàmm amuñ benn problème parce que man bari naa fa xarit ñoo xam ne dañuy demalante di ñoom aussi noonu donc man jàpp ma ne daal vraiment war na am yenn animosité yi sama ni suñu diggante ñoom daal association lañ boo xam ne dañuy dundal làmb ñun association buy dundal làmb lañ donc nañ góor góorlu muy ñoom muy ñun nañ góor l'essentiel mooy nañ def lu tout ba suñ lut san frappe bi bu mu gën a suñu loxo parce que moo des comme cosaan fi mu nekk nii moo fi des comme cosaan si biir loolu mooy Adrien Senghor arène Adrien Senghor tey ji moo fi des comme arène donc muy association amateurs yi muy association Adrien Senghor nañ lu ñu jàpp arène Adrien Senghor parce que moo fi des donc loolu rek mooy mooy xeex bi ah ak loo xam ne day jëmale suñu lutte bii nii kanam suñu mbëri di feyeeku salaire yu baax suñ arbitre di feyeeku salaire yu baax ñoom it amateur yi di si gis seen bopp amateur moom ni mu bopp si lamb ji lamb jotee tëgg bi dina neex wëy yi neex bëre bi neex am ay champion jeex na ñun lool su amee rek ñu bëgg yoo xam nga loolu donc ñun loolu rek loolu rek moo ñu soxal si biir loolu association am na yeneen domaines yoo xam ne dañ si war a liggéey donc laa si biir association yi lay doon mais avant tout nañ fexe sàmm suñ cosaan bi nga xam ne ñun moom lañ dese muy lutte traditionnelle nañ ko sàmm bu baax léegi affaire cachet cachet yu baax lutte simple cachet yu baax nan lay demee mbër yi ngay wax wala arbitre yi wala eh, ñan ñoo fay ko cachet yu baax. d' abord ñi fayeeku cachet yu baax euh, xam nga suñu mbër yi champion champion yi mérité nañ ay ay millions yu million comme lutte avec lutte sans lutte avec frappe xam nga mérité nañ ko. da nga bëgg wax ay mise cent millions ak yooyu. pourquoi pas war na mën a nekk war na mën a nekk mais loolu si su pour mu am foog sponsor yi fekk si ñu télévision yi ak site internet yi def comme Leewtoo TV ni ñu def nii. di dem si ñi nga xam ne ñooy acteurs de la lutte les vrais acteurs de la lutte ñuy waxtaan ak ñoom di promouvoir la lutte simple te yéen moom ngeen di def yow Birame da nga xam lamb yàgg si lamb moo tax man bi ma la gisee fii man dama si kontaan parce que xam naa ne yow au moins di nga promouvoir la lutte sans frappe. cachet yi man ñi ma si gën a yërëm mooy les arbitres les arbitres euh, man d' accord uma ñu dëgg lamb cent millions arbitre bay arbitrer grand combat bi di ñibbee dix mille francs logique du dëgg du yoon. logiqueul du dëgg du yoon tëgg caché cent millions jox ko mbër ka nga xam ne moo koy arbitré di ñibbi ak dix mille francs c'est pas normal loolu CNG na si xoolaat na xoolaat taxawaay boobu loolu baaxul. parce que aussi loolu amateur bi mooy wax xam nga les acteurs de la lutte xamante nañu seen biir xëy na mais loolu loolu noonu la demee wala da ko for ci weewu bay wala am nga ci ay ay yu la leer ay dix mille francs ci cent mille cent millions ah bon xaw je financier. Biram du moo xantu dama la ne. arbitre yi. combat mën na am cent millions. ñoom ñu ñibbi suñu séddoo ku nekk dix mille francs lay am li ma wax dafa leer xam nga loolu leer na te du yoon ak risques yi ñuy courir yëpp ñoom mystique a fi. mystique mu ngi fi ay séeréer lañ nañ wax wax ji mystique mu ngi fi ay menaces a ngi fi ay nit lañ ñoom mën nañ def erreur ñu daal seen kaw lu nekk mu ngi fi. mais donc avec tous ces risques la man je vois mal ñu leen di jox ay ay ay ay prime yi dix mille francs du kenn xamul du yoon nañ xoolaat loolu nañ xoolaat gis nga euh, kayit yi ñuy chaque chaque année ñu modifier def li def nañ ci xoolaat arbitre je pense que dina baax parce que aussi euh, lamb ji du xool kase yi ñuy jox mbëri duñu xool stade bi lu ñu koy luye mu cher ak mu ñàkk a du loolu de rek de no non non les acteurs de la lutte aussi dañ si am wàll. mooy ñan arbitre dañ si am wàll yaa ngi dëgg donc ñooñu man mën naa ne ñoo ñoom ay acteurs principaux parce que tey jii yow arbitre su amul. mbër ma mu fa amateur mu ngi fa. gaay eh, gaay duñ duñ duñ bëri duñ bëri nañu waxante dëgg duñ bëri. mais kon mystique dana dem ba ci arbitre. ah mais pourquoi pas. pourquoi yow xam nga yow tey jii parfois da ngay seetaan lamb exemple surtout lutte lutte avec frappe da seetaan combat yow da ngay xam ne arbitre bi moo war arbitre final yoo xam nga bu ma man damay toog sama damay xam ne kii entre kii ak kii ak kii ñett ñii kenn moo ko si mbala ñaar ñi sax kenn moo si arbitre final bi kenn donc loolu rapidement vite fait mën nañ ko def li ñu koy def. maanaam mbër yi wala seen sëriñ. waaw mbër yeeg seen sëriñ ak ñëpp. mbër yeeg seen sëriñ dañu quoi ne Aliou Ndour ay arbitre combat bi diggante yàgg ak biiram kon nañu. bëri ñu ngi fii di yore téléphone di woo seen sëriñ avant combat di commencé seen sëriñ yaa ngi si biir arène bi avant combat di di commencé ah arbitre yaa ngi fi. ñoo xamuñ ni mu demee mais quand même nañ ci bàyyi xel nañ fi bàyyi xel nekkuma fi pour nekkuma avocat arbitre yi mais dama fi nekkal pour avocat lutte pour mu leer làmb làmb parce que loolu yëpp lii yëpp luy jëmale làmb kanam la parce que suñ ko bàyyee muy bay kenn xamul lu mu mën a indi ëllëg Sénégal nag malheureusement dañuy bàyyi benn affaire muy dox di dox kenn du si wax kenn du si wax ñu bàyyi ba un mu indi problème ñu door si taxaw naa non cest à war nañ def ni war nañ def fekk c'est trop tard c'est trop tard dañoo war a jël les devants avant yenn yi di yegg si ñu def ko moom mooy yoon parce que nit ki aussi diriger c'est prévoir. loolu euh, dafa mel ni kon am na erreur d'une part ci benn côté xaw ma kan la léegi euh, bu ñu jógee foofu yan yan erreur nga détecté CNG la CNG la ñoo war a taxaw si loolu amul erreur d'une part xamoo ban côté la CNG la ñoo war a taxaw si yooyu mbir da nga koy wax rek mu leer yaa ngi dégg man moom CNG suñ defee lu baax damay taxaw fépp ne lu baax lañ def rafetlu ko kaasale yi damay taxaw ne lii waruñ ko nangam ak nangam mais nag wax dëgg moom si jotee nañ ko wax yaa ngi dëgg wax dëgg si jotee nañ ko wax parce que su doon ñoom ñoo nekk si position arbitre yi ni ma koy waxee nii laa koy waxee yaa ngi dëgg buñ toog nag gis seen bopp ne noo waruñu waxee nii si noonu la ñuy waxee làmb ji kenn moomu ko amul kenn ku mën a taxaw fi ne moom man ba may seetaan die lamb boobu ay 10 ans laa mag 7 nangam kenn joxuma si xaalis ne ma dama toog seetaan lamb le 19 janvier bi ñuy euh, décorer Momo Sibassor dama ko woo ba mu ñëw ma ne ko fii laa doon toog nekk xale bu ndaw sa papa di tëgg làmb may seetaan bay nelaw yaa ngi dëgg tey ji donc suñ toogee ma koy décorer ñu ko amal daal di ko décorer si sa kanam donc yow da nga war a góorgóorlu baax a baax yaa ngi dëgg parce que ñun baabu da doon tëgg ñu nekk ay xale yu ndaw di seetaan ay birole mu ñëw ay diya ay sibasor ay gànjaay ay ngooj fajar teel la ñuy préparer pour dem seetaani làmb euh, Aliou jërëjëf avec son franc yéen a ma gën a xam euh, ci làmb ba léegi mbër yi actuellement lutte simple am na fu mu toll mais mu mel ni dafa rafle ay champion kenn daal moo mën. waaw loolu day daa xaw a yéeme franchement xaw ma nag lan moo waral loolu mais mën nañ ne kenn moo mën parce que su fekkee ne mbër su xesee dugg si ñu ne kii moo koy jël day xaw a doy waar. bu njëkk da doon am lu xaw a mel noonu mais du demewu doon noonu parce amoon na temps aussi antu soobeem fu mu duggee sa làmb ji ñu ne suñ defoon ndànk antu dina yóbbu làmb ji mais boobu ñoom jage saara nga fi woon. ñoom jaga saarang fi woon donc antu lu mu leen ëpp ëpp doole parfois am na ñoo xam ne dañ ko si doon daan mais lii daal ni mu demee man daf ma xaw a jaaxal donc euh, mooy lenn rek gëm gëm sa bopp bi gis nga ne day gëm boppam. mais loolu xale bi moo liggéey di rëg moom moo liggéey wala yeneen xele yee liggéey. rëg dafa liggéey gis nga li mu nekk daf ko mérité gis nga doomu aadama su liggéeyee ba yegg si yenn niveau yi da koy gërëm encouragé ko. Reug Reug daa liggéey ba yegg si fii dafa liggéey gëm boppam parce que Reug Reug tëbu rek nekk champion lu simple déedéet et puis li mu fi def kenn defu ko fi parce que moom dafa teglante ay année di nekk champion tandis que fii da nga doon gis tey ji Mawla moo fi teg tànk Adrien Senghor beneen année bi Paul Maurice beneen ane bi Diaga Sarr beneen année bi euh, usine doole. mais kii moom année yëpp la waabale dafa mel. macha allah parce que bi ko defee première année ñu bëri man noonu ci laa bokk dama ne woon non. lii moom yàgg na fi am mais prochaine année di nga gis keneen ku ñëw mais dafa ñëw confirmer confirmer woo xam nga li ko indi dafa liggéey gëm boppam dafa ne man làmb dama bàyyi lépp ndax làmb làmb dama koy jox cëram. mais ci cachet ba léegi ma retourner en arrière euh, woykat yi ak tëggkat yi. voilà naroon naa fàtte fàtte la. ñu baal ma parce que ñoom aussi euh, ñu war a bàyyi xel lañ parce que tey jii man ma jël sama exemple man duma ma déglu beneen kii beneen wëy lu du wëy làmb képp ku mu xam-xam na ko sama toujours làmb ngay déglu ba fa ma mën di dem yaa ngi dégg donc tey ji ñoom waroon nañ am droit docteur franchement dañ ko war a am mën nañ di génnee aussi ñu leen di jàppale ñuy génne ay CD même suñ génnewul ay CD génne ay single yoo xam ne au moins dinañ si am gars yi organiser leen ñu si am dara parce que c'est important ñu bàyyi nii ñuy wëy di wëy di wëy ku si mel ni suñu yaay Xadi Juuf yàlla na ko yàlla yërëm doomam sama classe la muy layti ndog ñoo demandoo armée donc kooku tey jii ak li mu fi def yëpp waroon na feeñ si am-am si koom-koom waroon na feeñ ndax amul lu mu deful amul ku bégalul fii si doomi séeréer amul. doomi séeréer ak doom ku ku gëm làmb donc donc tey jii kooku waroon na feeñ si moom donc aussi exemple boobu rek waroon na tax ñi nekk nii. muy ay ñoom mbay ak luum ay ñoom may dem ay ñoom day faatu Adama Jali ak ñeneen ak ñeneen ñu jéem lañ encadré jéem lañ jàppale. ba ñoom au moins suñ demee ba mënatuñ bala ñu dem ba bàyyi làmb au moins ñu am loo xam ne dinañ si dinañ ko toogaalee seen retraite mën na doon retraite bu rafet mais làmb daal mooy li ma la wax dafa am côté boo xam ne gars yi dañ si gën a bàyyi xel beneen côté bi bàyyiwuñ si xel te loolu du yoon. Babou nga monument la monument la Omar Dia monument la ah ñoom tey ji au moins waroon nañ am loo xam ne parce que dañ ko liggéey ah dañ ko liggéey dañ ko liggéey mais malheureusement. li ñu leen waroon organiser ba mooy topp si ba ñoom ñu am si koom defuñ ko ñoom na dañ doon dañ doon tëgg di wëy ndax bëgg ndax cosaan yaa ngi dëgg mais gis nga loolu d'accord am na ba léegi mais nag dafa am loo xam ne gis nga jamono suy dox na ngay dox ànd ak moom na dox ànd ak moom te mën naa ne lu bëri loolu mën na ko yàq jamono suy dox da ngay dox ànd ak moom cosaan bi nañ ko nañ ko gën a saxal ah mais nag naa ànd koom c'est très important su ko defee suñ mbëri di si gis seen bopp suñ woykat yi ak suñ tëggkat di si gis seen bopp waaw donc loolu rôle CNG la na si taxaw. Euh, lan la ñu lan lan nga gis yeneen inconvénients comme ça nga mën a tàggatoo ak mbokki Leewtoo TV ak ñi lay suivre. waaw li may tàggatoo mooy euh, surtout damay gë gërëm amateur yëpp surtout waa Amalda di si jiital euh, ku si mel ni Diène Diène Diouf tey jii soo gisee ñun ñu taxaw fii di wax sa moom la soo gisee ñu taxaw fii di wax moom la parce que moom moo ñu donc teg si kanamam. ba tey ji man ku ñu gis jéen nga ñuy xoolee donc loolu dañ ko siy sant ko ñaane yàlla may ko wër yàggal ko suñ kanam parce que moom mérité na lu nekk nag si làmb Diène Diouf lu nekk mérité na ko donc di gërëm aussi Manga nga xam ne daf ñu mës jàppale di gërëm président Saliou Diouf nga xam ne mooy président section sans frappe di gërëm aussi Doudou Diagne Diéko président Malda di gërëm ñoom Mbayang donc suñu secrétaire général boobu la Lyon donc di ko gërëm bu baax a baax ñu si mel ni secrétaire général Ablaye sañ Mbayang Fall donc ñoom Ablaye Sagne ñoo ñoom ñoom Alex Alex Ka donc di di di nit ñu vrai bu baax a baax donc di leen di gërëm bu baax a baax parce que franchement amal laa dafa nekk famille dafa nekk famille balaa nga koy xam rek kenn am si problème donc ñoom ñëpp ñooy taxaw donc ñu ngi leen di gërëm di leen di ñaanal yàlla taxawaay bi yàgg donc di leen ko ñaanal ñoom ñëpp di ko ñaanal association yëpp ah parce que ñu ñëpp benn lañ donc ñun ñëpp benn lañ ay ay xarit lañ dañu dem demalante donc di ñaan yàlla jàmm sax si réew mi la la kii laa lut sans frappe développe bu baax a baax a baax bu ku nekk yëg si boppam donc Leewtoo TV aussi ñun ñu leen di ñaanal parce que gis nañ seen liggéey rafet na macha allah donc ñu leen di ñaanal ngeen nekk premier chaîne ak premier site internet waxuma la Sénégal mais au monde incha allah te mën na nekk. gëm leen sama bopp rek. ñaan boobu am na ciy topp yàgg sans pour autant tarder yéen a ko gisandoo mbokki Leewtoo tey dañoo ñëwoon jël si Aliou Ndour beneen yoon dana ñëw jël keneen wala ñu tollanti ko ndax waxtaanu làmb gëm naa ne jeexal ko du yomb.